billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ci seen télévision ICFA télévision tey dañuy ànd ak sangu ku ak lu yàlla bind mu yont yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu nettali ñu xam nga nettali su dee dafa aju ci yonant nettali ga dara du ko gën rafet ndax yonant bi toll noonu su fekkee nag yonant ci boppam mbokk yi moo ñuy nettali jamono tey ku nekk bëgg nga ñépp jàpp ne yow la ñépp jàpp ne baax nga kenn bëggul ku ko xamal lu ñaaw ah. am na sax woy bu may dégg nit nit di ko woy nooy tontoo sa noon su fekkee noonu am na nettali yonantu gi wan nañu naka lañ ko tontoo xadis ji mi ngi ci euh, collection wu imam Buxaari yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne benn waay la woon dafa xëy ne tey daal danaa saraxe te yàlla tax ba mu toogee ba guddi mu génn taseeg benn waay ŋàbbu saraxam jox ko ndekete sa sàcc la sarax ñëpp xëy di ko reetaan tusaddiq ala sariq amuloo koy jox sa sarax ku dul ab waaye mu sant yàlla ci tawfiix ba mu ko jox ba mu mën saraxe fa qaal allahumma laka alhamd la atasaddaqanna bi sadaqa dinaa saraxewaat mu génnati ndekete ndaw sa mu dajeel sarax ko ngeen baal ma ci wax ji ab caga la maanaam kuy jaay boppam njaalookat ñépp xëyati tu sa dëpp leyla ala zaniya amoo koy jox sa sarax lu ab taxawaalukat buy jaay boppam mu ne allahumma lakal hamd waaye xelam dalut ndax sarax ba nangu naam am déet mu yéeneeti ne danaa saraxewaat mu génn ak saraxam taseeg benn waay ndekke waa ji ci ñi ëpp alal ci dëkk bi la bokk te moom xam ko mu ŋàbb saraxam jox ko ñëpp xëyati yow daal sa waay yaa xorom rek ab richard ngay sarax mu ne alhamdu mu ne allahuma laka alhamd ala sariq wa ala zaniya wa ala gani man daal sama borom maa ngi lay sant bu dee sarax bi ci loxo sàcckat laa ci loxo njaalookat laa ko teg ci loxo ku riche laa yonentu ne fa utiya waa dikkaleef ko moo xam ci nelawam la wala malaaka la ko yàlla yónnee fa qiila la waxeef ko amma sadaqatuka ala sariq fa laallahu an yastaifa an sariqati waaw sarax bi nga jox sàcc mën naa am mu feguloo ko wali sàcc mën naa tax mu arrêté sàcc eh, njaalookat bi nga jox alal parce que alal la taxoon mu doon jaay boppam mën naa am mu bàyyi njaaloo au moins bés boobu de ki womal nag te du joxe ba ñu jox ko loolu mën na koo jàngal leçon ne ah lii de bind la bind la amuloo ne am na ñoo xam ne fii gisuñu ko joxe du ñu xam ne dañu war a joxe su su ku dem nag yore lu dul jeex te doo ci joxe taseeg nit mu jox la moo lay wan ne ah kii de mi may jàngal ne ndeke am nañu soxla eh, eh, Adham Sharqawi dafa bind benn téere tuddee ko ma na bi ànd ak yonantu sallallahu alayhi di ci commenté xadis bi tiire ci leçon yu am am solo yuy wane ne ndekki nit ñi maanaam bu ñu déggee xadis bi ndekki nii la nit ñi mel la waaja waxoon soo waree mbaam yàgg sa doom ñu ne da ngeen soxor bëgg a rey mbaam mi su ngeen àndee wàcc di womat ñu ne da ngeen dof naka ngeen di yore waruwaay te du ngeen ko war su mag bi waree bàyyi xale bi ñu ne amul yërmande su xale bi waree bàyyi mag bi ñu ne moo ñàkk yar kenn mënul gërëm loo nit ñi loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa di jàngal fii arab dafay wax ne irdaau nnaasi gaayatun laa tudraku kenn mënul fexe ba gërëm loo ñëpp ndax nit ñi bu ñu la bëggee loo def mu rafet su ñu la bañee loo def mu ñaaw waaye nag loo bëri bëri ñu la bëgg xamal ne à côté am na ñu la bañ loo réussir réussir ci àdduna xamal ne am na ñoo xam ne du ñu ko gis loo baax baax ragal yàlla am na ñoo xam ne non seulement dinañ ko euh, questionner mais il faut faire campagne pour que ñi ci des sikk ne yow ku baax nga lanay solution bi kon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy nga bàyyi nit ñi fële te def li ngay def te yàlla tax boo nekkee ci sew nit arab dañuy wax ne sayyidu qawmihi al mutaghabi waaw nee na kii kiy jëllale ba ñu foog ne dafa dof ne mooy sangu aw nit waaw euh, tubaab dafay wax ne en amour il y a toujours un perdant pour ñun le perdant mooy kii muñ alors que le perdant mooy ki ki muñut pour ñun le perdant mooy ki bëgg euh, ki bëggul nag naka lañ koy waxee mooy ki bëgg te bëgg jóg pour ñun ko koy le perdant alors que le perdant mooy ki bëggul parce que ki bëgg loo ko wax bismil mahabba dafay kontaan loo ko def loo mu def ko parce que dafa bëgg mais ki bëggul soo ne ko jox ma pot bi sax euh, problème la métit la ci moom mu jottali la pot bi dal nañu yàlla boole musal ci relation bu mbëggeel lalul ci barke yonent bi sallallahu alayhi yëpp na ko te itamit su fekkee lu nekkati ne jonn rek nga bëgg ko régler ci musiba ngay dë ngay dëkk gis nga lekk ni koy bàyyee mu sedd tuuti nga soog ko mën lekk naka noonu am na problème yoo xam ni boo ko bëggee régler ci tàngaay bi mooy yaa ngi lekk lekk bu tàng bi ñuy soog a yekk mën na la lakk xamuloo am na problème tamit yu nga xam ni ni nga seddalee lekk ba mu euh, ba mu ba mu sedd tuuti nga mën ko lekk noonu ngay bàyyee problème mu sedd tuuti nga mën ko régler moo tax lu ne rek euh, teg ko fa nga ko war a teg waaye bu fekkee li nit ñiy wax ngay déglu doo def dara ndax tey buñ la tooñee nga baale ñu ne tàppet nga soo bëggee jël sa xaq fayu ñu ne da nga agressif suñ la gisee ngay saraxe ñu ne da ngay ngis tëdd soo àndee ak borom alal boroom xam-xam ku yàlla jox daraja ñu ne la markatu tànk boroom alal nga suq nga seet nga ni ko waa Saloum bi di waxee waaw suñ la gisee ngay nuyuwante ku ñu xamee mooy yàlla ñu ne yàgg moom a yem sooy toppatoo sa jabar ni la ko diina waxee ñu ne xar nga jabarama ko yiif soo melul ni nit ñi ci mooy yàlla wala nga bëgg a takkoo sa diine lim la wax nga def ko lim la tere nga bàyyi ko ñu ne intégriste nga mutazammit wa mutachaddid soo nekkee ci bureau ñépp di jël corruption nga nangu nga nga nangoo def li nga war a def te nanguwuloo ku la corrompre ñu ne rachim ah, xamul li xew xaati bu lëy dafa tardé su dee jigéen la nga muur say cër ñu ne fashionul wala ñaawaayam a tax amul forme moo tax muy sol yenn yére yi su fekkee ne danga nga topp sa jëkkër ni la ko diina diggale ñu ne daifatu shaxsi ah, yooyu xewi na ah, yooyu xewi na jigéen a góor ñooyam euh, euh, faiblesse boobu la ak soumission xewi na alors que du soumission parce que système bu nekk euh, société bu nekk organisation bu nekk su amul njiit mais dafa tas mais njiit taxul moom kër gi président de la république moomul réew mi dañ ko jiital rek naka noonu tamit góor dañ ko jiital ci kër waaye moomul réew mi moomul kër gi moomul kër gi gis nga mbokk yi kenn mënul fexe ba kontaanloo nit yi xam nga ku kontaanut ci li yàlla def soo bëggee mu kontaan ci li ngay def eh, kooku booyee boo xam ne eh, futi nga nit ñi gërëmuñ sax li yàlla def bés bu set ñu ngi jàmbat ku nekk problème si ndaw su mu am tax na mu fàtte xéwalu nooy xéwalu jamono maanaa waxtu xéwalu wér xéwalu mën a wax xéwalu mën a fóon xéwalu mos xéwalu gis xéwalu dégg xamuloo ne am na ñoo xam ne ba ñu juddoo ba léegi mosuñu gis ba ñu juddoo ba léegi mosuñu dégg mosuñ amuñu yëg pour làmbu lëf ne lii lu nooy la walla lii lu dëgër la amuñu ko seetal loolu am na ñoo xam ne ñu ngeeg lu ne te mënaluñu seen bopp dara wa in tauddu nicmatallahi la waaye ñun nag bu ñu amee benn problème mbaxana mu réer sax ñu foog ne àdduna tukki na waaw dootuñu gisati xewalu yàlla yi mukk waaw te wolof dafay wax ne soxla bu dee ñaar rek wéraam wata yonentu ne nicmataani maxbuunun fihima kathirun min annas alsiha wal wara waaw xéwalu wér doo ko xam mukk fekk ñàkkuloo ko waaye xéwalu temps doo ko xam mukk fekk ñàkkuloo ko ñu ngi dund rek tey ñuy seetaan football suba ñu seetaan basket gannaaw suba ñu seetaan rugby gannaaw wat suba ñu seetaan mu euh, film dégg nga bu dee woor sax ñu ne dañu dem rayu koor gi bu dee temps ñu ne nañ dem ray temps un peu suñu dund dafa ñàkk valeur ci ñun ba nga xam ne lu ne rek la ñuy jëfandikoo pour rey ko bu ñu dee nag. taxaw ci kanam borom yàlla na ñu xanaa joxuma leen woon temps bu doy joxuma leen woon tax bu jot doy pour ngeen mën a xalaat ñu ne ko yàlla ñun taxawuñu àdduna bës lañ fa am wala genn wàllu bës laa yal ñu doon compter <laughs> mu ne ah wax ngeen dëgg yi la biso min laa qalilan aw annakum waaye nag joxoon naa leen temps bu doy moo tax il faut que ñu xam ni ñuy utiliser suñu waxtu bañ a compter ci li nit ñi di gis ci ñun te xool li yàlla yi gis ci ñun ndax nit ñi kenn mënul ci ñoom dara wallahi law saaxaba al insaanu jibrila laa yaslamu almaru min qaalin wa min qiila qad qiila lillahi aqwaalun muzaxrafatun tutla ida quri alquranu tartila qaalu bi anna lahu ibnan wa sahibatan zawran alayhi wa buhtaanan wa tadlila in kaana qawluhu murillahi xaaliqihim fa kayfa in qiila fiina baadu ma qiila soo fi àndoon ak jibril di doxi service yàlla du tere nit ñi jëw la dara nga ci mënut yàlla mi leen bind waxal nañ ko ne ko am nga jabar am nga doom te moo yore seen ruux su ko neexoon balaa ko ki ko wax di wax balaa moo sottal mu jot ruuxam waaye mu seetaan leen su fekkee nag yàlla la ñuy waxal loolu yow ak man ñooy kan ñooy kan mbokk yi nañu fexe jox suñu bopp yàlla waaye nañu fexe yi tamit ku ñu gisati mu def mbir balaa ñu ko juger ñu wutal ko ay excuse benn kilifa nee na sa mbokk jullit balaa nga ko yedd war nga ko wutal juróom-ñaar fukki excuse ne soo ko wutalee juróom-ñaar fukki ngant amaluloo ko ngant ne seetaalal sa bopp balaa ngaa yaddi keneen yaddal sa bopp yow yaa am problème eh, te tamit am na yenn ngant yu nit mënul wax imam Malik jàngal nañu ko toog na jamono bu nga xam ne dootul demati dëj dootul demati ngént dootul demati jàkk te muy ilimaanu julliti te muy ilimaanu julliti biñ ko laajee lu xew mu ne laysa kullu naas yaqdir an yatakallama bi udrihi du ngànt yëpp lañ ñu mën a wax eh, xamuñu ban période la mais mel na ni mën naa am période biñ ko dóoree la ba mënatul boppam mënatul boppam lu bari te dóor ya ma nga jógee ci eh, ku ñu forcé nga fase sa jabar fase ba tàbbi woon ñu politiser wax ja ne ko ne dafa wax ne eh, xalifa bi eh, eh, légitimul ba tax ñu dóor ko waaye wax nañ ni imam Malik nee na biñ koy dóor mi ngi ñaanal gouverneur bi tax ñu dóor ko su dee moom la walla xalifa bi su dee moom la mi ngi koy ñaanal yàlla jéggal ko lu tax li qarabatihi min rasulillah bëggam yonantu sallallahu alayhi wa sallam tax na jege gi kooku jege yonantu tax mu baal ko fekk dóor yi sax baleeku ñu waaw ba ñu politiser wax ji ni imam Malik dafa ni ñiy jaayante ak yow seen jaayante wérut te kon yow sa xilaafa légitimul parce que da nga nit ñi te ku ñu forcer mu def dara lañ ko forcé mu def ko wérut ndax ku ñu forcé mu fase fase ma tàppewut gis nga nit ñi ni ñuy jàllar bee waa ñu ni ñu dóor ko ci dóor yooyu mën na am moo waral lii waaye waxul loolu moom dafa ne du ngànt yëpp lañu ñu mën a wax mbokk yi nag du ngànt yëpp lañu mën a wax boobu imam Malik wax nañ ko def muy suñu ngànnaay nañ ko def muy suñu cumukaay nañ ko def muy suñu barrière bu ñuy def suñu digganteeg nit yi ba duñ leen euh, euh, jugé waaw gis nga ñu bari dinañ fekk koo xam ne problème am mën na ko xendal waaye bañ ca duggee rek tax yëf ya ëpp ko doole dinga nga am problème sa salaire bariwul yaa ngi ci suturloo nit ñëw na la yow lii nu ci mën a nàngamee tax nag nga bëgg a wuute neneen noo xamee ne daganut parce que nit ñi nangam sàngam sa jëkkër yaat moom lu tuuti ngeen am waaye kenn xamalu leen dara ñun yi ngeen di dundee rekk nga bëgg ne ko man nag damay génn damay defi nangam damay nangam musiba nit ñi ñoo mel noonu lu ne bëgg nañ ca dugg bëgg a xam li xew te duñu di solution problème loolu eh, la waajo wax ni maamam dafa doon wax ni eh, nen bu nekk bëgg nañu xam ko ko nen ganaar gu nekk bëgg nañu xam ka ko ganaar problème day am diggante jabar ak jëkkër kenn ci ñoom du bëgg siiwal mbóotam waaye nit ñi danañ fexe ba bëgg xam kan mooy ki am dëgg ak ki amul dëgg te seen raaya ci bëgg xam gi mooy bëgg xam rek du leneen bëgg ñoo xam ngir defar mbaa pour yewe na waaye nañ xam rek ñu invité leen nañ dem xew sàngam ndaw si mënul dem ñu ne ah, xam naa jëkkër moo ko jë jëndalul euh, yére xam naa dafa amul ndaw tat xam naa xam naa xam naa xam naa mën naa am dafa am problème ak ki ñu invité dinañ fàtte fañ waroon a dem seen problème mooy kii lu tax demut kese lu tax mooy nit ñi dañu bañ kumpa dañu bañ kumpa say say say sa sa sa kër gi meuble yu màgget yi doo ko changer laajuñ la ko pour bëgg nga changer mais dañu bëgg a xam lan mooy problème bi te buñ ko xamee it mën naa am lu tax ñu régler ko buñ xamee ne amuloo duñ la jox buñ xamee ne lu tax demuloo place sàngam lu tax doo dem vacances amuloo xaalis duñ la jox wéruloo duñ la dimbale waaye nag xam rek moo tax fokk ñu jàngee ci euh, xadiis bi naka la ñuy doxale suñu diggante ak suñu borom ak naka la ñuy doxale suñu diggante ak nit ñi mbokk yi lu ñu nëbb nañ ko bàyyi mu nëbbatu waaw benn euh, daahimin duhaatil aarab dafa ni musuma débattre ak nit ba mu not ma lu dul benn xalil bu jigéen bu ma mos laaj benn question question ba moo ma yar daf ma romb ma nga ndab ndab la ñu ko muur maanaam ñu ngi ma ne ko lan a nekk ci ndab li mu ne ma fa li ma rattay naaw idan suñu bëggoon nga xam lu ju nekk lu tax boon ñu muur ko lu tax ñu muur ko ki muur mbiram bàyyi ko mu muur ko nañu bàyyi lañ bëtu waaw kii saraxe sarax na ko kii wala kële yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ngi nettali nit ñi di ko ree te yàlla moom gërëm na beneen bi ñuy jàngee ci xadis bi mooy ñi nga xam ne eh, dañoo nekk di mooy yàlla waruñu nekk barabu réewukaay pour ñun mais dañ leen war a yërëm jëm leen dimbali ku nekk ci ñun boo gisee sa mbokk mu nekk ci lu dul noonu fexeel dimbali ko maanaam fexeel bu jàpp ci loxo ki nekkul ci li war a nekk yóbbu ko ci boromam subhaanahu wa amul benn yonantu bu yàlla yónni ci ñu nekk ca lañ war a nekk su fekkoon ne ña ca lañ waroon a ne yàlla du fa yónni yonant góor jigéen yi gën a yiis yàlla yónnee na ci ñoom yonent pour jox leen chance bu baax muy waa kër Luut kii bew bay woowee boppam ne mooy buur bi gën a mooy borom bi ana rabbukumul aala muy firawn alayhi min allahi maa yastaxiq min allaana yàlla daf ko yónnee ab yonent ñaar ci ay soppeem la ko yónnee ba pare wax leen ko qawlan la waaw na ngeen nooy ab moom laallahu yatadakkaru aw yaxsha parce que nit bu nooyul mënul changer dara moo tax jamono tey ni ñuy gisee diine eh, ñu koy présenté mën na dawloo ñu bëri yàlla fekk ñu naan ko yow yaa jur malaayka yi yaa jur xërëm yi mu yónnee leen ki mu gën a sopp muy Seydina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag nañu def ci suñu bopp mbokk yi lii Seydina eh, Isa waxoon ne bu ñuy xool nit ñi nañ leen xool en tant ay jaam waaye bu ñu xool bàkkaarkat yi en tant que borom parce que duñu borom ay jaam lañ ñi ñoom waaw ñu yërëm borom nattu yi ngir nattu ba ñu am te sant yàlla ci aafiya bi te ñaanal leen ndax amul kenn ci ñun koo xam ne sa kattan moo tax nga jub wala sa pexe bopp yàlla la jubal mënuloo woon jubal sa bopp mukk kon nag bul ndamu ci kaw ki jubul te ni ñuy yërëmee ku feebar mënulul boppam dara te li ko dal si physique nu ko raw kon lañu war a yërëmee ki yàlla nattu mu di ko muy ndax feebar li yées ci lim mun a def mooy rey nit ki te ñun ñëpp ay dee waaye ak mooy ak réer fa mu jëmee nit ki bu ko yàlla musalul mooy safara wala yàlla bi ci des mooy dëgg la yàlla euh, moom méngoo yéene yi ñun zahir yi la mën a atte waaye nag nañu bañ a waru ci zaahiri ndax bëri na kuy moy yàlla te fekk xol ba yàlla nga ca bari na kuy dem ci jàkka ja te fekk dara yàlla newul ci moom bëri na kuy mooy te fekk xol ba yàlla nga ca bari na kuy dem ci jàkka ja te fekk dara yàlla newul ci moom lu mët a bàyyi xel kiy dem ci jàkka ji nag ñun moom lañu mën a jugé xool ba yàlla moo ko mën a jugé waaye kii nekk ci leneen i tamit bu ñu ko condamné nañ ko jox chance ndax yonentu sallallahu alayhi wa xam gi mu xam ne seen bànneex ak seen cheytaane moo leen mën moo tax dina doxal sharia ci ñoom su waree wante du leen xañ nag seen bëgg yàlla ko ko yonant mukk du leen ko xañ du leen xañ seen chance mën a baax mukk du leen ko xañ benn waaye ngi nii saxaabi la ñu koy abdullah ñu di ko daan woowee ximaar ci jamono ku yàlla na toowoon naan sàngara la euh, daan na sax reeloo yonant bi sallallahu ndax ko amoon la waaye saa yu naanee ba ñu indi ko ñu caw ko Euh, am ñu def yenn commentaire yi indi nañ ko benn ñaar ba ci ñetteel ba am benn waaye ci ñi toog ne allahuma laanhu ma aktaru ma ma ma yuta bi yàlla ko yàlla yàlla na ko yàlla rëbb kii lim fii ñëw bari na lool waaw yàlla yàlla yàlla na nga rëbb kii liñ ko fi indi bari na lool yonentu sallallahu alayhi wasallam ne mukk bu ko waxati ndax fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbu llaha wa rasulahu xaw ma ci moom lu dul ne bëgg na yàlla ak yonentam seetaan loolu bëgg na yàlla ak yonentam mbokk yi bul gis soxna si dul muuru nga jàppee ko nit ku bon dëgg la mi ngi mooy yàlla ci ñàkk gi mu ñàkk muuru boo ko mënee laaye biir laaye biir ko kiy déglu musique firiwul ne dafa bañ alxuraan comme niñ koy waxee léegi déedéet ki yàlla nattoo it ba musique bi nekk aadaam ba fum mu toll mu ngi koy déglu téel ci loxoom nga yóbbu ci yàlla waaye bu ko condamné bu ko condamné gis nga bu bu fekkee ne yàlla dimbale na la ngay jéem a doxal sa diina niñ la ko digalee ba pare ngay bàyyi ci wàllu diina gi côté boo xam ne na mu amee solo kenn xamu ko muy wàllu jëflante mais yaa ngi yaa ngi dàq nit ñi ci diine parce que nit ñi bëgguñu mel ni yow bu fekkee ne lii mooy diine ba man bëgguma mel nii mel ni kon nag nañu présenter nit ñi diine ni ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam doon présenter nit yi walaw kunta walaw kunta farran ghalida alqalbi lan faddu min hawli loolu la ko yàlla wax ko soo soo soo nooyuloon soo wawan xol soo bonoon xol soo xatoon xol li nga amee malgré mooy message bi gën a baax saxaaba yi ñooy ñi gën a am qaabiliyatu pour jël message bi dañuy daw bàyyi la fi lan faddu min xawlik kon nag laa tubaxidu laa tubaxidu llaha ila xalqi ki nga romb du dem jàkk mukk te yow yàlla dimbale la ngay dem jàkk nga nuyu ko waxtaan ak moom mën naa am mu xem ñëw jàkk mais soo ne ah kooku kañ lay ñëw ki dul muuru te di sa xarit yow ngay muuru ngay waxtaan ak moom di ko reetaanal di ko kafal mën na ko invité à ce que mu xemam li ngay def gis nga baat bu neex yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na sarax la sarax muuñ nee na sarax waa jii mbokk yi jaalookat la sarax sàcc la sarax ku am lu dul jeex la sarax soo borom waxut ko lu tax saraxoo ku fegu ngay sarax njaalookat léeg nga gis ngay joxe ne ñu naan ah daf koy màndee ji rek wala daf koy na lu la ci leer sama borom waxu ko lu tax saraxoo ku baax ngay sarax sàcc waxu ko lu tax saraxoo faqiir ngay sarax ko am waaye daf ko bégal ne ko sarax bi nga jox njaalookat bi mën naa am mu bàyyiloo ko njaaloo bi nga jox sàcc bi mën naa am mu bàyyiloo ko sàcc bi nga jox ki woomal mën naa am mu jàngal ko leçon wu ne moom it dafa war a joxe kon nag ñu bàyyee mbindeef yi yàlla seet ku ñu mën a dimbale ñu dimbale ko te yàlla tax te xalaat suñu bopp njëkk ku ñu gis mu mel nu mu warul mel ñu seet ñun ba ban pourcentage lañ am ci jikko boobu soppi ko ku ñu gis mu baax ñu seet ndax mel nañu noonu suñ ko meloon ñu jëm ko dam suñ ko melee ñu jëm ko yokk yal nañu yàlla boole defal dégg boole ñu defal topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu